bon euh, salaamaaleykum mbokk yi ñu ñëw ci benn waxtaan bu gaaw rek concernant mbiru Idrissa Seck bon mbiru sa Seck moom dama bëgg senegal yëpp nañ ko def ak cant nañ ko jàppee ak cant yàlla ndaxte suñu mbokk murit yi dañ naan làmp ñiit na Bamba feeñ mais man dama naan mag Macky ñiit na Idi feeñ ndaxte dama xam ni jikko yi nii ci sa Seck muy jikko kàccikat jikko fekk jikko escroc yii mu yor bis bu ko yooyu bis bu ñu yàlla nëbboon jikko yi nii bañ dénk ba jox ko suñu réew mi maanaam kon ñun maara day taali kon Sénégal moom dama naan moom ba ilaa yow mi din abat dootul baax kon nañ ko jël def ko ak cant ndaxte Macky Sall nous a sauvé mal Macky Sall nous a sauvé du mal ndax Macky Sall tax na ñun ñu xam tey jii kan mooy Idrissa Seck dama naan Macky bi mu toogee ci réew mi ba léegi mi soo soog a def lu baax kon nañ ko jël def ko ak cant ba nga xamante ni yàlla wan nañu kan mooy dëgg dëgg dëgg Idrissa Idrissa Seck kon nañ cant yàlla bu baax a baax a baax te bu ci kenn merti nañ ko def ak cant loolu laa ne woon benn naa ko wax. ñaareel bi mooy yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a jege suñu xalif généraux yi yéen a nga yéen a tax nit ñi di manquer respect toujours suñu xalif généraux yi mu yéen ñi na yéen ñi naan les bras droits des xalif généraux wala les bëkk na day wax sëriñ bi li xew day leen wax sëriñ si li xew bu nit ñëwee ci sëriñ bi. dee ko wax dee leen ko wax li ngeen xam ci kooku bu fekkente ne day def lu bon day fen day du wax dëgg bu fekkente ne dañ ko dénk xaalis réew mi mu luubal ko bu fekkente ne dañ ko dañ bu fekkente ne dañ ko bu fekkente dañ ko gis mu nekkee naka sulul noonu ci réew mi maanaam am leen courage ak fulla ak fayda ak gëm yàlla goo xamante ne wax leen loolu xalif généraux yi ba ngeen xamante ne ñoom duñ naage dans l'erreur parce que man dama gis ni xalif généraux yi maanaam dañ leen dul renseigné bu baax ñooy tax des fois ñuy dafay erreur ndax man jàpp naa ni sekk Seck mii kaamil bii muy yor di firi ay baatu alquran di ko booleeg ay fen tey jii bu ko xalif généraux yi xamoon bu ñëwee toog ci seen suufi tànk lépp luñ ko mënal digali duñ ne ko Idrissa bàyyil kàcc bàyyil kàcc ndax référence nga si dëkk bi loolu tamit bëggoon naa nit ñi di bàyyi xel kon yéen ñi jege seriñ bi yéen tax sëriñ ci di sëriñ si sëriñ si sëriñ si di di di nager dans l'erreur muy ñaar Idriss Idriss Seck ñetteel bi yow même bu fekkente ni respecté woo respecté woo mais respecté say doom parce que boo fenee say fen wax sa li ngay wax àdduna bi yëpp gis ko ba xale yi juddu tey ak bërki dem xam ne yow da ngay fen yow am nga droit bu la Macky Sall wooyee jox la nga jël mais jëlal mëq te ne mut mais bul yàpp sénégalais yi bu wëlbatiku naan dama ne fasuma ko yéene te vidéo yi ñëpp vidéo yëpp nekk mais respecté say doom parce que say nga may nawle te bàyyi bu nekk war nga fexe bañ fee bàyyi. way bu way way wu ñaaw pour say doom sa papa fenkat la loolu lan moo ko gën a ñaaw yow boo amul chance Idrissa di nga bokk ci bàyyi nar a dégg papa bàyyil fen kon xoolaatal sa bopp Idrissa adduna yàggul ëllëg da fi fiy bàyyi ay doom ak ay sët kon nit ku nekk war nga nga fexe bàyyi way bu rafet pour say doom ak say sët kon loolu laa na woon naa ko apporter bu ko defee ñun ñëpp ñun ñëpp ñu def nag sant yàlla ci réseaux sociaux ba mu ñu ñiitalee kan mooy Idrissa Seck nañ ko cante yàlla bu wér a wér Sénégal na ngeen xam ne yàlla da leen a bëgg ndax yàlla bu leen nëbboon Idrissa Seck tey jii ba ñu jël ko jox ko réew mi kon na leen leer ni il sera pur pur pur des présidents yi fi mës a jaar yëpp kon baax na jërë ngeen def bu ko defee ba ci beneen vidéo nañ ko def ak cant yàlla nañ cant yàlla mu ñu ñiitalee kan mooy Idrissa Seck baax na jërë ngeen jëf